Bienvenue sur Salam Vision. bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom ñi nga xam ne moo digal jaamam ñi ñuy wut àndandoo te àndandoo ja ñuy wut ñu tànn ko gannaaw bu ñu sante sunu boroom moom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bi boroom jikk yu kawe moo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci aayat suñu borom bi mu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen amuk suñu borom gi ak yami àndal na ngeen teg seen tànk fa mu leen ko tegloo te wut àndandoo àndandoo ja ngeen di wut nag na doon koo xam ne ku dëggu la ci pas-pas ak gëm yàlla du ko kooj ci dara yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa alsaadiqin àndandoo nag ak lëngoo dañoo niroo ànd ak lëngoo dañoo niroo suñu boroom nag buy tegtale baatu àndandoo lay wax waaye su dee lëngoo nag maanaam bu ne àndandoo alsaadiquun lay wax almuttaquun lay wax waaye su dee lëngoo nag xarin la koy tudde almuttaquun mooy ñu ànd ak yàlla ñam tudde ña ànd ak seytaane yàlla nañu ci àddu àndanoo nag kenn ku koy soxla ci nit ñi amut bu fekkoonte ne kenn dana ko teg nee na soxlawu ko xanaa mu doon yonent yi bokk te ñooñu kenn ku ci nekk bu ñu la nettalee ay jaar-jaaram am na ñu sësoon ci ñoom rëkk ñoom daan àndal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mag bi di wax ne ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muxatau noonu la yàlla bind nit amul kenn ku mën a dem moom kepp yàlla mu seddale mayam séddaleeg may nag lu yéeme la ci dégg ci dégg séddale lim nangu mooy ñëpp tolloole waaye yàlla séddalewul day maye mayam yooyu nag ñam ca may ñëpp tolloolewuñ tam ëpp lente nañ waaye taxut nag kenn mën a taxaw fee ne moom lam yor doy na ko sëkk ba du ajagoo kenn kum àndal kii day soxla li kii yore fekk mi ngi nekk lu ne gàññ koo xam ne ka muy soxla yor yorul dara la toll nii dem yor waaye kee tam ma ngay soxla nit ca lam xam doonte kuñ suufeel la ci ni ñuy të ni ñuy tëgg askan yi waaye téewul mu ne guun ak li kii am solo lool ci ab juddu soxla kon ba ñuy yëj yal nañu ca lu musal di ñaawal. yónni gi yàlla yónni yónent bi sallallahu alayhi wa sallam naan alxuraan ji nim feese ak balaaxa ak bayaan bi kenn mënu cee dindi dara jot sëkk di wàcc ci koo xam ne boo ko binduloo woon autorom mënu ko bind loolaa ko tax a mat moo tax ñu xam ne li muy wax jógewut fi moom du aw jàng kese lu teewoon mu yónni enzim bi nekk Makka wala bii nekk Taif lawla nuzila hada alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim yàlla ne ahum yaqsimuna rahmata rabbik ndax li yàlla di joxe ku ne di ca am ndax ñoom ñoo koy séddale wala yàlla koy séddale naxnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia wa rafana baadahum fawqa baadin darajat liyattaxida baaduhum baadan suxriya wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmaun lii nit di am suñu boroom nee na mooy séddale kenn ku nekk ak lam koy jox kenn ku nekk la lam ko lam koy jox soo xoolee li la yàlla jox doo xool la kee ba da nga di ca teg baat ndax moom moom la sob aaya boobu dajale na lépp kon lañ cay dégg mooy amul kenn koo xam ne mën naa gën a xam nit ñi lépp ba tax ñu di ko topp te fekk daray taqwa nekku ci jëmmam yal nañu ci yàlla musal xam-xam bu bari ba xam lu kenn xamut du tax ñu topp nit ki def ko àndandoo warut tax waaye bari alal lool ba gii jal kese warut tax ñuy def àndandoo nit ki waaye ak pal lu mu kawe kawe wër sa tax nit ñi topp ko kese kese bu ëntëg taqwa waaye yax bu rëy aw askan it kese kese kese yu buut nit fenn ba tax ñu war koo topp su fekkee kooka dara taqwa nekku ci ñàkk taqwa nag weesu wut yàlla ne penku la kooka ràngoo yenn ci may wax ni ba tax mu naan du penku soow la yàlla ñu ci musa kon nit war naa seet bu baax ki muy àndal yàlla nee na kiñ war a def àndandoo mooy koo xool xamoo lu mu la gën a bëgg loolu yàlla kese bu dee ku la gën a bëgg xam-xam bàyyi ko day xam dara ña ci des xam leneen wa qul liman yad'i ilman wa ma'rifatan arafta shay'an wa gaabat anka ashya waaye ku lay jaay alale it dana romb saa bu jógee këram di dox dana romb lu bari lu mu xamut ku ko moom te moomu waaye ku lay jaay dara ji it léeg-léeg ne ko taxawal ba diw jàll waaye ku lay jaay aw askan it nit ko rek ci aadama ak awa mënu ko teg faaw fan lay fekk kon boobu ki ngay def ànd na na doon ku la gën a bëgg yàlla gën laa ragal yàlla rek léegi nag suñ jamono farfarloo moo ci gën a bari farak koo xam ne lu mu def rek na la kooku du àndandoo xar yéen sax lay tudd ndax ci toolu seytaane lay nekkee yàlla nañu ci àll musal woroom xam-xam yi nee nañ suñu boroom dafa jox yitte àndandoo ba bi muy nettali ñi ko fekke wutoon ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jógee makka ci ndigalam di dem madina am na lu mu ci tudd tudd ca àndandoo yoo xam ne lu mën a xew moog yoway ànd du farfarloo id yaqulu li saaxibihi laa tahzan inna allaha maana am nañu wax ne sax àndandoo mi ngi mel ne toxu sax boo déggee diw toxu na moo njoolaayam ba ak wala gàttaayam ba wala xeesaayam ba wala ñuulaayam ba ñoo ànd dem buy toxul lépp lay àndal dem loolu moo tudd ànd na am na nit ñu am maqaam fa yàlla ba mu feeñ ci nit ñi ñu jàppe ko ko mu doon ko la ko ko jox du dara lu may àndandoo yu dëggu ca lañ ànd ak moom te saa bu bëggee jàdd ñu ne ko yaa ngi jàdd nit ñi nag léegi silmaxa mooy jiitu njàccaar topp ca te njàccaar loolee topp ci ginnaaw silmaxa dañ koy naan sa ñëw ko ne yaa ngi toppal sa ndaja wala càmmooñ su duggee ñu pax ñun ñëpp ñu ànd ci dugg yàlla ñu ca lom waaye am na ko git bu dee xam-xam la am na ko alal la ñuy nawee nit am na ko alal la ak daraja la ñuy nawee nit am na ko aw askan la ñuy nawee nit am na ko mu jekki-jekki di mbàppiku jóge ca kaw di xatar bi ko ba ne dér fi suuf yaxam yépp damm bëñam yépp buur gëñam yépp buur la ko ko teg mooy ñami àndal ñuy ay xariin ci moom dañ koy rafetalal loo xam ne kenn waru koo wax sax ñu ne ko lu rafet la wax nga lu rafet su dee lu mu def ñu ne ko def nga lu rafet kooku nag day mujj mbiram lu ko taxoon lu jóge ci yàlla tàggoog moom ndànk ndànk ba mu ne tóoj lu dese dàq yàlla nañ ci yàlla musal sunu borom subhanahu wa ci boppam moo ne dee leen seet àndandoo tey moytu xariin wax na ci alxuraan ne ku fi mës a ñëw rek di ab yonent yàlla wàcce na ko boole ko ay noon yoo xam ne ci lañuy xame ak yonentam ay noon yu bari pexe te am kattan loole mooy tax ñu xam ne li muy wax du ay waxe boppam li muy def du jëfi boppam nee na ñooñu nag dañ am ci nit ñi am ci jinne yi bu dee ci nit ñuy gis day def lu mu wax ñu tàcc ko ne ko noonu la de wala ñu fottasu bu dee ñuy fottasu ñu fottasu bu dee ñu tàcc ñu tàcc bu dee ñu yuuxu ñu yuuxoo ko yuuxu ko am na yuuxu yoo xam ne euh, soññ nekk ci li doon wax la mooy sar xol la rek waaye nee na loolu yomb na xam xoolal koo xam ne lu mu wax rek ñu ne na la na doon qaala allahu qaala rasul mooy fi muy wax ne wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayatin al insi wal jinn yuuxi baaduhum ila baadin zuxrufa alqawli xurura wax ju rafet rek mën naa rafet nii ci kaw neex a dégg ci kàddu gi waaye lépp ay wor la ku ko ku ko gëm woru ku ko jàpp yàqu yal ci la mu set nee na kooku nag ña topp sa gannaawam dañoo am gàllankoor ci gëm ne bis dana ñëw ñoom ñëpp ñu bokk leen àtte ndax bu ñu gëmoon ne bis dana ñëw ca kanam ñu bokk leen àtte am na yooyu kenn du ca ànd ak nit ki moo tax mu ne wali tasga ilayhi afidatu alladina la yuminuuna bil axirati wali yardaw wali yaqtarifu ma hum muqtarifu nee na nag àndandoo ju baax ku mel na mu war a mel teg tànkam ci taqwa ak ku lëngu ak nit seen wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy lii nee na di toog ak di ànd ak ku teg tànkam ci taqwa te mu dugg ci moom mu ngi mel ne ku toog ak ku yore biteelu gët laj ko laj bu génnee ba xeeñu mën na laa jox nga xeeñu su la joxul nga xeeñ li it boo fa jógee da nga yeex a tàggoo ak xetu laj ko lañ waaye nee na xarin nag koo xam ne da ngeen lëngoo kepp mi ngi mën a toog ci mbaarum ministre métallique loolee mu upp di di di baxal di lakk weñ nga soo fa yàggee ay ferñeent dana dal lakk sa mbubb wala nga mujj tàng jiir te ku la gis dana xam ne ci mbaar moom a nga jógee ndax xetu weñ ngaa lay jàpp Euh, misaal am na ñu daan gor matt xar matt ko xar fellit yooyu cay jógee yëgut sengoor lañ ko daal tudd amul ku munta dal ku fa taxaw mën na laa dal ku fa taxaw rek mën na laa dal moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne innama mathalul jalisi saalixi wa jalisi suu ka xaamilil miski wa naafixil kiir fa xaamilul miski imma an yuxdi yurdika wa imma an tabtaa minhu wa imma an tajida minhu riixan tayiba wa naafixu lkiiri imma an yuxriqa thiyaabak wa imma an tajida minhu riixan xabiisa kon boog nit war nay xool bu baax ki muy àndal ki ma jëkk a wax moom la yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati walasiyi yuriduuna wajha wala taadu aynaka anhum turidu zinata alxayaati addunia wala tutic man man agfalna qalbahu an zikrina wattabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta muy loo sa bakkan bii tey seet ñi ngay àndal mu mel ni ab laaj daa jub ñooñu ñooy ñan mu ne ko moo ñi nga xam ne guddi ak bëccëg foo leen fekk jëm yàlla ji dong la ñuy wut si fi yow dëgg àdduna soxlawuñ ca dara waaye bul mas gerte geesu mukk koo xam ne kii ab xolam léeg-léeg mu sikki sàkk ba xam amul yàlla gi wér na am sax loolu la ko ko teg mooy dafa topp bakkanam ba bakkanam mëdd pas-pasu gëm yàlla kooku nag mooy àndandoo mooy lënkal mooy koo lëngool képp di teg suñ nee waxtu julli jot na mooy nañ xaar tuuti muxtaar sàngam gudd na wala nañ àggale bala nit ñi tasaaroo wala boog nañ gaaw ndax diw ñoom dañoo yàkkamti bala ñoo diw ñoom a yaweeku loolu yàlla taxatut waaye am na ay bayit yu gàtt yu ko sëriñ bi tënk ci ab téeréem boo xam ne nahju qadaa il xaaj la tudd nahju qadaa il xaaj am na ci loolu moo ko wax am na lool ci waxe ñeneen la ko jële waaye jenn wax jee rek xam-xam la ku ko mën a wax baax na am na fu ñu wax ne wala tusaxib in aradta suxba da safahin aw xasadin aw raxba sooy wut àndandoo waxuma koo lëngool de àndandoo demal seeti koo xam ne xel mu a cocc la yoon xel mu ne cocc nag ni koy mën a xamee mooy koo xam ne taqwallahi ma nga ca waaye bu mu doon ku dese bu mu doon ku añaan bu mu doon koo xam ne lu mu seen bëgg ca kooku mooy ki nga xam ne moom koy àndal la waaye bu fekkee da ngay grand place fooy faral di waxtaane ci nanga ko seet bul dem foo xam ne fii dañ fay ñàkkal fayda diine dañ fay nëpp sam xel ba doo xalaat jëm ci yàlla wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadan tanal muraad fa axbaru bi anna mal maru ala diini xalilihi xadiisan nuqila loolu xadiis yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bi muy wax ne al maru ala diini xalilihi fal yandur axadukum man yu xaalil waaye kii moom da ko gën a jege ku ñu wax Uday ibnu Zayd al Ibadi mu ngi ci nax ju dafa wax ne jël la ne di wut koy àndal waaye daf koo def farata ne ginnaaw nit nga ni nit ñi faw nga wut ñooy ànd waaye na doon ñi gën ca nit ñi nag soo ko defut danga daanu ci kàmb ànd ak ka nga àndal yi ñépp ngeen maax daanu ci kàmb إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرضى فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارب يقتدي li tax mu tudd fee saax saaxib tudd fii qarin saaxib mooy ko baax ki ki nga xam ne mi ngi teg tànkam ci taqwa ab jotaayam doo fa déglu yàlla nee na yonent bi nee na wala ñu baax ñu nee na yam ca du seet loo xam ne noonu bu yàlla wala bu yonent moo ko waxe nam ko soobe mu yér rek di wax am na ñoo xam dañuy yér di wax am ñu yëg di wax loolu nag mu ëpp suñu jamono dañuy yër di wax lu ñu lu ñu yër rek doy na leen déedéet demewut noonu bokk yi am na téere yooyu ña ko bind boo doon seet seen cosaan doo ko xam mi ngi mel ni ñu naan ca bu yàggoon tuuti ku tubaab yi ne noo tudd di bindukaay bëgg a bind aw turam bëgg koo fichier mu ne ko muudu laa tudd moo tax ñaan muudu muudu yi mu ne xanaa yéen ñëpp ay muudu ngeen kon kon jamono yooyu wër ab muudu ku tudd muudu yo gis ko yomb ginnaaw ñëpp muudu lañ tudd nooy xàmme muudu am na téere yooyu day wax ab safaan jikko jëmale ci ñu baax soo ko jàngee defe ne téereb xam-xam la ba mu doy la léegi tey nga taxaw di wax nit ñu baax ñu loola soo te fekk tegoo ko fenn lu da ngay yër di wax rek day dal nit itam ci yonent yépp aleyhimu salaatu salaam euh, yër di wax moom ak yëg di wax day am te yër di wax nag moo gën a bari mën nañ laa wax téere bañ ko jëlee waaye su ma jëlee misaal rek bu ma bëggut tooñ dama naan diw al Baghdadi diw al Baghdadi ñaata lañ ñu dëkk Baghdad ñëpp diw Baghdadi lañ tudd diw ak Dimashq yi ñëpp ñu dëkk Dimashq noonu lañ tudd diw Makkaawi yi moo leen ñu dëkk Makka noonu lañ tudd noonu ñu dëkk Makka noonu leen di waaye bokk néew ma ñooñ yi dama ko misaal ci Moodu Moodu rek li tax mu tudd xarin mooy nit ki nee na bu laaj ci moom dara demal laaj rek xarinam xarin nag am na lu ci yàlla wax ci alxuraan wa man yaashu an dikri rahmani nuqayid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin wa innahum moom seytaane moom la yasudduunahum an sabil wa yaxsabuuna annahum muhtaduun xam naa ne an sabil du taxawukaay waaye dama koy dogg par benn ndax mu neex a jàpp loolu alxuraan bañu ko wa innahum la yasudduunahum an sabili wa yaxsabuuna annahum muhtaduun dañuy lëngu ak moom bu demee kaso ñu rocciku buñ ne ku ko xamoon kenn ku nee na du man bu faatoo am na ñoo xam duñ ko jaale ci te moo ne yoon moom jaaroon rafetoon na ci ñoom jekkoon na ci ñoom defe woon nañ ni ku farak diw far nga ak waaja loolu ci àdduna lay amee waaye bu àllaaxira xata ida jaana am ñu jàng jaana qaala yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayni fa bi'sa al qarin nee na bis bu ñu teewee fi sama kanam yàllaay wax kenn ku ne dana moroomam su ma ko xamee woon nii danaa soreek yow ni penk ak soowu soree tey it yàlla na ma yàlla dimbale tey jii ba ma soreek yow ni penk ak soowu soree kon boog àndandoo am na lëngandoo am na yàlla nu yàlla tànnal ci coobareem ñi àndal te yàlla nañu yàlla musal ci lëngoo lëngoo mooy seytaane te alcheytaanu yaiduhum wa yumannihim wa maa yaiduhum alcheytaanu illa gurura alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsa di wàcce foofu sunu kàddu di ndokkeel daara ci boppam ci ndam di daara am amaat ko ren naka jëkk daara musa tàggoo ak ndam day am yu ràññi ko waaye mbokk yu loo gis ci réew mi daaraa ko fi def bu ñu demee ba naan dëkk sàngam ci gën a mag ci Sénégal la bokk bokk su ëpp lu ñuy fay lu ñuy bokket ci réew mi daaraa fa jaar boo gisee dëkk boo xam ne it mbooloo dañ fay jol-joli jëm at mu jot gis nañ ko ci gàmm gis ko ci màggal gis ko ci xew yi ñu woote yépp ci Sénégal foofu dégg ñuy woote daaraa daaraa fa nag kon ndam lii nga xam ne surtout góor gu baax googee di sëriñ jëmb xarit si moo ko am ren fan yii rek daal dolli ko daal daa am rek ndax téere boo xam ne wala fa ko bind ñu mool ko mu tasaaroo xawma ci bu jiitu téereb sëriñ jëm bu xarit si boobu suñu Fallu Mbàkke topp ci gannaaw bi xaamidun loo bari lool muy téere yoo xam ne ci réew mi lañ ko bindee déggaate gu ma nag yu leen rax ci réew mi barewaat na fi lool ñu bindaat ay téere waaye loolu lépp ba ndamul daara tàmbale yàgg na ñun nag am nañ mbett ci ne Sénégal alxuraan ñoru leen lislaam ñoru leen bokk yi gañee nañ fi bu yàggutoo lañ doon xëccoo ji Cameroun mbedd mi kenn mënta dem loolu lu mu doonoon ab pot pot bu xonq gis nga pot boobu benn benn nit ñoo ca ñoo koy jariñoo waaye ñoo ñee doon xëcc pot boobee ak ña leen doon teertu mbedd yëpp fees dell ku ci ak ruuxam rot dana soxla daara kon yeyoo woon nañ lool mbedd yi fees dell la ko tàmbalee fa mu doon wàcce ba ba muy àgg fu mën a jaar yi dafa war a fees ñoo ngi xool nag ba xam danañ jël alal ju bari di ko wërale Sénégal di ko war waa dë waa Sénégal waaw walla déet ndax loo xam ne juróom fukki réew ko doon xëccoo bu ko ab sénégalaise jëlee ak Sénégal fi ñu teg jigéen léeg nga dégg ñu naan boo doon góor nga dégg jigéen ju koy bàkkoo sax naan man du ma jigéen ju naan su ma doon ko kon ba léegi si dafa am bët bu ñuy xool boo xam ne bi lislaam joxoon na ko jigéen bu yàgg jàng am man koo mokkal man koo tari ba ba di sa am ndam yàlla xamuñu ci góor jigéen kon ñi ngi xool ba xam danañ ko defal xaafila bu mag maanaam daal mbooloo mu bari moo xam ne dañuy dañ koy yéegal ci oto muy wër Sénégal nañ doon defee pot boobee waaw wala déet yàlla na yàlla defal dégg topp te mu musal seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum ko li saa'iril muslimina amin man Bienvenue sur Salam Vision.